président ASC Réveil waaw. moom lépp ASC bi yëpp waaw. waaw ñu ngi koy préparé ci dal ak jàmm boo xoolee ambiance bi am tey ak démb démb ba tey donc mi ngi wane ne ñun si pare nañu ñu ngi koy préparé si tous les plans. non non non violence moom wax dëgg yàlla démb woote nañu euh, wax nañoo ak yi ak dirigeants yi joueurs yi ñëpp nañu dem football ci fair play que le mais nag incha allah. lépp loo xam ne laaj na ko pour ñu gañe ko ñu jël ndam li incha allah dinañ ko def bi mooy suñu première finale ODCAV waaw mooy suñu première finale ODCAV non yombul woon nag yombul woon ndax boo xoolee métti woon na mosuñu ko jommuñu nag ndax dëgg yàlla boo xoolee ay dix ans yi ni passé Réveil daan am équipe mais xëy na yàlla moo ko tuddul woon daal ren la ko yàlla tudd moo tax mu am ñu leen di waajal comme ni ma la ko rek sur tous les plans di yaakaar yaakaar ni daal incha allah dinañ yàlla dinañu suturaal. waaw loolu tamit ñu ngi koy déplorer li ñu koy déplorer li am ci stade bi ñaaw na trop ci wàllu sport sport foo ak ree la kaf ak ree la donc ñun euh, violence moom wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi koy ñaawlu li ci mel ni ASC bu mel ni Darou Salaam moo xam ne suñu ASC la ñoo dëgg vraiment li leen dal neexuñu mais aussi sanction bu amul rek euh, duñ mën a rétablir l'ordre du am quoi donc pour ñu pour ñu rétablir ordre il faut sanction am. mais sanction yi wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan aussi waa ODCAV bu ñu ko mënee wàññi ñu wàññi ko comme ça ñoom tam ñu ñëwaat ci bokkaat ci compétition bi. man ñaax naa samay joueurs ñu côté boobu yaakaar na amuñu si xel amuñu si ra amuñu ci lu ñuy tiit parce que xam nañ ñun ASC bi ñu yor xam nañ groupe bi ñu yor xam nañ booy yi ñu yor xam nañ aussi dirigeant yi ñu doon waaw loolu xam nañ ko ñun vraiment ñun kenn xameewuñu ay violence euh, man nag euh, may magu équipe bi euh, réveil bi mu formé en 2006. man maa njëkk a nekk président bi yor équipe bi pendant dix ans yor naa ko dix ans jox ko sama beneen frère bu ñuy wax Babacar fal mu yor ko ba jox ko actuellement ni président bi fi nekk ni muy Seydou jaloo waaw tey nag yàlla defal ñu bés bu rëy ñu dem final muy ñaari final yu rëy yu ñuy wàcc si en senior et en ñu ngi koy waajal nag si ni ñu waajalee final. du guleet nag du guleet ndax réveil ba mu formé première année en 2006 finalu na. mais dafa fekkoon boobu ñu ngi woon ONCAM mais biir ODCAV bu ñu jógee ODCAV ba tey bi mooy suñu première finale en senior kale yi nag final nañu trois fois loolu moom il faut ñu xam ko final guléet suñu du loo xam daal ñun miin nañ ko bu baax a baax. waaw ni ñu koy ni ñu waajalee final rek maanaam ñax nañu suñuy suñuy suñuy supporters que ne ñun stade bu ñu fa demee violence yóbbuwuñu kafre moo ñu fa yóbbu sport sport nag ñaar moo mën a am surtout final défaite mbaa dañu ñaan yàlla yàlla may ñu victoire mais bu safaan amee aussi ñaanuñu ko yàlla na supporters yi dal te xam ne yoon yemul si benn waaw yoon yemul si benn parce que ñun duñu prôné mukk violence xamuñu loolu ni ko ñëpp waxee rek réveil famille kon dañu ñaax suñuy xale na leen bu ngeen demee stade dal leen tey leen supporter seen équipe mais non non violence moom la ñuy woote waaw man en tant que membre de la zone 3B bokk si bureau zone 3 xam naa li nekk si violence bu baax a baax a baax te actuellement ba la xool nawetaanu Thiès mi ngi commencé yàqu xeex bi bëri na xuloo bi bëri na te loolu taxu loolu mu jóg sport loolu tax koo jóg sport day boole day dajale mais sport du tàqale kon dañuy wax dëgg yàlla nit ñi bu ñu demee stade nañ dal te xam ni sport moo ñu yóbbu leen yóbbu wuñu maaleykum salaam sëñ bi ñoo ngi lay fay euh, man maa ngi tudd Khoudia Mbaw euh, ñun ñoo nekk fii commission féminine u ça signifie que ñun tout ce qui est préparation togg ak lépp ñun ñoo ko yor. ñoo yor commission féminine bi ah spécialement lépp lu jëm ci wàllum cuisine togg regroupement tout ça on s'en occupe. waaw ñu ngi koy préparer ak ak dal ah di ko préparer ak contentement bu rëy a rëy a parce que. on peut dire que c'est la première fois Réveil di finalu euh, en plus mu doon mbégte double parce que double finaliste lañu am à savoir cadet bi dañu finalu senior bi aussi dañu finalu de ce fait euh, double contentement la ñu am ñun ñun ku ñu xam-xam ñu ci lu neex xam ñu ci lu saf xam ñu ci lu rafet waaw ñun suñu lépp moom day belli rek ba yàqu waa non non non non duñ def mbaxal yow tamit ñi ngi defar euh, ceebu yàpp ginaar Euh, bu am ay crudités yu bari parce que joueurs yi dañ koy soxla euh, am na viande hachée neem yaa ngi ñëw euh, caakiri yaa ngi ñëw salade de fruits lépp si final bi. bon xanaa ñun di leen wax ni déjà en tant que jigéen ñoo ngi seen i ginnaaw parce que voilà comme te ñun mun mënuñu joxe suñu doole physiquement ci terrain bi dinañ ko joxe si waañ bi de ce fait ñun ñu ngi leen di accompagner on est tout derrière eux di leen ñaanal yàlla may leen ndam. ah loolu la ñuy ñaan ñu ñëw fii ñun ñëpp ñu jubilé ñu feetu en tout cas c'est ce qu'on souhaite na yàlla def li gën nag mais bu ñu sañoon li gën ci ñun mooy ñu gagné ñaari final yëpp loolu lañ bëgg ah en tant que jigéen dañ naan violence moom baaxul ci dara que ça soit muy ci football bi que ça soit muy dans la rue fu mu doon rek violence baaxul ci donc ñi ngi ñi ngi inciter la gens les gens à ce que ñu def fair play par rapport ak lépp lépp lu ma xamante ni dañ koy antu fair ci lépp nawetaan kaf foore la ambiance koñ de ce na ñun ñëpp dem xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Thiès quel comme soit Alpha Ndam ni mënut a génn Thiès de ce fait nañ leen demandoo ñun ñëpp def ko ci fair play ñu fubal ku yàlla may ndam